waaw ba léegi ñoo ngi fi nga xam ne mooy eh, Feeling Dakar ki ma toogal nag mooy Ali nekk fi nga xam mooy Feeling Dakar moom ba affaire yi am fi lax fekk waaye da koy bàyyi rek ma présenté wu wax affaire bi ak naka la demee sëñ Ali ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay maam Thierno di la siyaar di nuy Ousmane tamit bu baax a baax di rafetlu seen teewaay bi gannaaw bu ngeen yëfee yëgee li nga xamante ne am na fi ngeen ñëw. loolu dafay wane ni rek ñun ñëpp ñoo bokk benn famille la quoi wax dëgg nekk fa yàlla ñoo bokk milieu milieu bi ñu ngi leen di jaajëfal si loolu aussi tam bu baax di nuyu mbokki internet yi nga xam ne ñoom ñoo ñu seetaan jamono ji. dama bëggoon tey rek comme que euh, li nga xam ne dugg nañ fi li nga xam ne sàcc leen ñoo tey ñu duggaat fi muy deux jours ñu duggaat fi tey nga fekkee affaire bi nga bëggoon xam ñi nga xam ne may seetaan li nga xam ne may Dakar Midi rek pour ñu comprendre affaire waaw euh, vol bi am fii nekk loo xam du ñu wax ni c'est la première fois quoi dafa nekk loo xam dafa répété wu répété mais cette fois-ci comme vidéo bi caméra de surveillance bi jël euh, euh, environ ay deux heures du matin la fi ñaari woyu sax laay wax kenn ki moo taxawoon ci suuf kenn ki yéeg moom mooy yéeg te bi muy yéeg ci ci balcon bi foofu la jaaree. wàcc noonu ci fauteuil bi ubbi bunt bi fekk caméra bi mi ngi koy jël moom gisul woon caméra bi nag mais sa salon bi mu bi mu jaaree noonu amoon na benn écran plat boo ko xamante ni moom moo fa nekkoon dafa wekki écran plat bi jox ko keneen ki nekk ci suuf kooku jël ko dugal ci suuf oto bi moom muy vérifier waat eh, yeneen yeneen matériel te Feeling ndakaar gis nga li fi nekk ci matériel fii ñu nekk ni si si studio bi am na ay caméra yu cher yoo xam mi ngi fi mais buntu studio bi dañ ko tëjoon c'était fermé régie bi tamit am na yeneen ay ordinateurs yu fa nekk ak yooyu boobu foofu aussi tamit c'était fermé mooy xool moom laal na porte yi mais bunt bi dafa dafa dafa tëje xam nga par la suite nag euh, ki nga xamante ni moom moo fi nekkoon te jigéen la woon aussi tamit xam nga mënu leen woon affronter moom lii mu mënoon def na ko mooy mu mu mu woote woote na téléphone am ndànk am ñu mu woo ko ci mel ni délégué Amar au passage ñu koy remercier tamit ak Mbaye Koutia aussi tamit xam nga ñoom ñoo ñëw ci ci ci ci ci guddi gi noonu booy daw booy nag bi ñuy daw tele bi nga xamante ne jëloon nañ ko écran plat bi nëbb ko ci suuf oto bi mi ngi fa ba léegi ñoom dañu bàyyi ba délégué Amar dem ak Mbaye ñuy retourné waat pour ñëwaat jël si waat li nga xamante ni moom mooy télé bi. par la suite tamit suñu beneen frère papi xam nga am na ñu mu àndaloon jógee Medina doon ñëw papi frère Maram Diop la moom itam si la bi ñuy yegg si tamit si la ñu tombee gars yi ñëwoon pour récupérer waat si li nga xamante moom mooy affaire yi ñu ñu dàq leen après si la ñu xool si suuf nag doo ko gis télé bi moom léegi ko e, wàccee woon nañ écran plat bi yéegal ko te fii am na gardien boo xamante ne aussi tamit moom mooy nekk ci ci suuf mais gardien bi lu may wax xam naa dina xaw a reetaalu mais 21 dafay nelaw. man su may su may ñibbi damay taal sama moto chaque jour dama koy tooñ damay taal sama moto ñëw ba foofu xàndal ko ne ko dangay nelaw ba ma nar la yenu sax looy nelaw yi tooñ ko après dem démb aussi tamit euh, bi ma jógee tournage ba ay trois heures de matin bi ma ñëwee fii fi ma ko fekk moom gardien si boppam muy nelaw maa ko yee après si laa toog ak moom di waxtaan ba euh, fajar gi noonu jot moom mu dem ñibbi après man ci laa ci laa ci laa dugg fii te vol yi comme ni ñu koy waxee nga am na euh, aussi tamit sànq euh, fii laa bi ma ñëwee ay trois heures du matin tëdd naa ay 14 yooyu ma jóg taalaan machine yaak yooyu noonu di monter ay vidéo sama xel dem ci sama moto bi mu ngi ci suuf ma ne xaama wàcc xool moto bi comme fii fan yi wóorul ma wàcce xool moto bi automatiquement yéegaat même pas deux minutes may yéeg bi may yéeg laa daje kenn benn waaye muy wàcc ci jóge ci kaw di wàcc ma ne ko sa foo jógee mu ne ma ci kaw laa jógee Mouhamed laay seet ma ne ko mais Mouhamed fii dañ la wax fii dafa am ku mu ne ma wooy ma ne ko mais fii amul Mouhamed fii du kër bërëbu liggéeyukaay la yooyu fe maa ngi ko gis mu yor benn tablette ci loxo bi ma ne ko ma xool li nga yor mu jox ma tablette bi ma récupéré ko téye ko ne ko kan moo la wax Mouhamed fii la dëkk ba nga ñëw mu ne ma noonu ma ne ko mais yow ñëw nga fi doy la nga yéeg ci kaw ci kaw terrasse la xam nga mu ne mais dama dégg benn bruit moo taxoon ma dem après ci laa ko accueillir ma ne ko kaay toog mu toog ma téye tablette bi xool naa tablette bi mais amul photo amul dara dafay mel ni lu bees la quoi xam nga après si laa woo madame Diop ma ne ko kii dama ko fekk muy wàcc ci kaw ne Mohamed lay seet yooyu madame Diop na ma kii xaw ma ko xamuñu ko tudd ma ne ko kon toogal munoo demee noonu parce que fan yi vol yi nga xamante ne am na fi xam nga si la commencé di andi ay wax yu bare ak complication benn grand aussi tamit Malick moom moo ñëw moom i tamit aussi xam nga euh, récupérer booy bi ànd ak ñoom maram Diop ñu dem fay nga xamante ne moom mooy gendarmerie. Hmm. moom gis nañ ba ngeen jugee gendarmerie ñoo ngeen fekk li nga xam mooy booy booy si bi ba tamit menacé ki nga xam ne mooy madame Diop ak ki nga xam ne mooy Mbaye Kouthia voilà pour pour pour loolu de passage tamit euh, mooy booy yi nga xamante ne dañuy toog ci koñ bi mat nañu presque quarante personnes boo toogee bu ñu waxee dañuy wax ni que ñoom Wally Seck la ñuy xaar te bunt du ñu toog buntu kër Wally fii lañuy toog ci koñ bi euh, caméra de surveillance vidéo yooyu mu génnee ñaari booy yooyu noonu. ñun ci ci lendemain bi heure yi rek presque tamit laa wàccaat dama am habitude nag su ma toogee fii toogaay bu yàggee damay wàcc taxaw ci suuf bi ma wàcc taxaw ci suuf la ma benn vigile buy toog fii en face moo ma ni sa sa sa waa ji dem na ne parce que nee nañ ko booy bi jéegoon fii dem moo ñëw automatiquement man tam ma topp Alioune ma dem Alioune ma ne ko lan la mu ne ma booy yi ñoo ma ne ñoom xam nañ booy bi fi yéegoon parce que ñoom seetaan nañ vidéo booy confirmer effectivement que ne xam nañ ko ñu ne ñu ñu ngi mi ngi toog ci jàkk bi fële ci jumaa bi du ñu dem ci jumaa ji tamit aussi xam nga fekk fa booy bi mais laataa ñu koy jege si moom xam na ni ci moom la ñuy ñëw mu daw yuuxu nañ sàccee foofu xam nga comme ni ko sénégalais def mais dafay am ñoo xamante ne comme ci secteur bi lañ dëgg te booy dañu leen di xaw a rey ñu ngi leen di yuuxu sàcce booy dañ leen di romb nii daw kenn du jóg fi nga toog da ngay dem nga dàq booy ba mu ci après bi ngay retourné ñoom lañ lay laaj naan la lu mu def ak yooyu ma ne leen bi ma koy yuuxu sàcc fii la leen fekk ñu ne waaw ma ne kon bu ma kenn laaj lu mu def xam nga booy daw ñu ñëwaat ci ci gang bi nga xam fa lay toog booy kenn kii moo ci yëkkati téléphone am woo ko ki ñu doon dàq noonu mu daw def ko haut-parleur na ngi taxaw maa ngi taxaw ñoom ñëpp ñu ngi taxaw booy bi mu ne fa mel ni waa Feeling Dakar yi ñoo ma doon dàq quoi booy bi ne ko loo def mu ne ko parce que démb man ak Ibrahima dafa tudd tur ne ko man ak Ibrahima ñoo ñëwoon foofu ci guddi gi quoi ñoo fa tëjoon ñoo fa tëboon pour sàcc quoi man ak Ibrahima mais jàpp leen si rek ku leen wax ne leen ko xamu leen ñu. kon booy yooyu noonu dem ba woo kooku ba ñoom confirmer que ni xam nañ ko ba woo ko téléphone mu décroche ñu wax kon ñooñu ak booy boobu ñoom ñëpp benn lañ kon cela veut dire que yàgg nañu jël alalu jàmbur ñu xam ko noppi bàyyi noonu. tout récemment yàggul dara Ablaye fii la nekk moto bi ñu ko jëndal bees dañ ko dañ ko sàcc fii Alaaji Mbay toog fii di def émission wàcc fekk ñu dàmm baaru moto bu teelu loon wàcc jour boobu dañ ko doon yóbbu tamit aussi man man tamit idem sama moto dama ñëw naa fekk ñu dindi sel bi di dindi batterie bi mais batterie bi man vis bi nu ma ko seeree dafa foire xam nga moo tax mënuñu ko laal oto madame Diop gaare ñu ubbi ko bëgg a jël batterie doo comprendre te fii man dëkkuma fi Medina laa dëkk mais ñi nga xamante ne ñoom ñooy suma ay morom dëkk ci koñ bi fii doo leen gis te ñu seeni ay kër lañuy dugg di jël seen alal ci ay individus yoo xam xamoo fu ñu jógee sànq gis nga ñi ngi menacé madame jóg naa ko xam nga loolu tamit ça devient grave Mbaye Kouthia aussi ñu ngi koy menacé di ko wax ay xam nañ la ak yooyu noonu ñi si war a jël ay matukaay nañ ci jël seeni ay matukaay boo waxee ñu ne Wally Seck la ñuy dañuy la ñuy la ñuy seet xam nga Wally kenn joxoñu ko baaraamu tuuma mais tamit ku bindoo ni tama dinañ la tëggee ñaari boor moom dafa weex donc ba lu ñëw ñu tudd ko ci mais waxuñu ko ni booy yi ay booyi Wally lañ déedéet parce que ñi ànd ak Wally kiling nañ wala set nañ benn xeetu set boo xamante ne du ñoo ñu di toog fii wax dëgg neex fa yàlla mais dafa am ñeneen ñu koy gisee ni dañuy attaqué Wally wala déedéet Wally suñu dëkkandoo la te li am noonu moom la gën a nakar aussi. est-ce que yéen waa koñ bi wala yéen ñi nga xam ne yéen a dëkk fi nga xam ne waa koñ bi jug ngeen dem si Wally wax nga wax ko li nga xam ne moo xew si koñ bi. waa comme man dëkkuma fi liggéey laa fi am mais keroog tonton bi nga xam ci en face de dëkk ñoo na toog na fi wax na ko ma dégg mu ne ñoom demoon nañu réunion ak Wally Seck ba waxtaan ak moom ci loolu waale xamal leen ne yëf yi moom la gën a métti te effectivement affaire yi moom la gën a métti démb bi may jógee soirée Youssou Ndour bi ñëw 3 heures du matin dama fekk ñaari xale yi jigéen ak ñaari góor fi booy di toog noonu ñu toog fa mais benn xale bu jigéen mi ngi fob benn xale xale bi sànq gis ngeen ko aussi xale bu jigéen ki mu fob noonu amul sax si mois ay 3 heures du matin ñu toog fii waa koñ bi tamit dañuy toog di seetaan te ci biir koñ bi fa la fa la ñuy génneel booy booy ay boolu añ ak yooyu noonu comme ñoom ñoom leen di ñu ngi leen di mettre à l'aise foofu bu ñu fa toogoon amuñu lu ñu lekk wala dara dina uti dem xool le feneen bi mais boo fa toogee ñoom xam nga gis nga dàkk na le ñu ne seen añ li ñuy ñëw jël si kon ñoom ñoo leen di gën a mettre foofu à l'aise kon ñoom ñoo ci war a jóg boobu baax a baax a baax mais quant ay menaces yi ñuy def euh, madame Diop ak Mbaye caa ak keneen ak keneen wax dëgg ne fa yàlla nekk loo xamante ne dañuy toog di ko seetaan gis nga sànq ki fi mujj ñëw ba ñu jàpp ko mi ngi ci loxoy gendarmerie gendarmerie ba yëf yi njëkkee am dem nañ fa alerter leen bind plainte ñu ne ñu dem leen ba samedi samedi jot na alin dem na fa plainte bi ba léegi. ci ay nit yoo xamante ne ñi ngi leen di wax ni dem nañ ba ay mën li paa bi wax sànq tant que rey ñu nit fii wala agressé nit rey ko du ñu ñëw kon tamit police wala gendarmerie askan wi lañ fi nekkal su ñu demee déposer ay plainte nañu def farata li nga ak li nga xamante ni moom mooy yoon ñu teel a ñëw dimbal nii mais dañ lay dem dem leen dem leen dem affaire yi day gën a yokk loxo ba bi booy njëkkee ñëw lañ dem def plainte ñu ne dem leen samedi samedi alinu dem delluwaat na fa ñu renvoyé waat ko tey gis nga li amaat bu ñu toogaatee di seetaanaat suba ak gannaaw suba ak suba gannaaw suba leneen mooy amaat quoi. yan ah, yan kàddu ngay ngay ngay joxe waaye loolu kii ngay lancé. waaw li may li may wax rek surtout ci ci euh, gendarmerie bu foire jege na fii war nañ mën a ñëw fii di def ay patrouille yenn heures yi bu ñu ko deful seen bopp ñi nga xamante ni ñoom ñëw fi dëkk nañu jël ay ay ay ay vigile yoo xamante ni ku ci nekk weer bu dee da ngay cotiser benn mille francs kër gu nekk. ñu ñu sécuriser leen fi fii li fi nekk ci boutique bi dugg naa fi bëccëg barkaaru xoraan di jënd am ñaari borom moto yu yu génnee paaka di nangu téléphone jàmbur mais benn instant ma loolu munuma ci dara keneen ak keneen munu ci dara mais koñ bi bu amoon sécurité bu doy boo xamante ne tey loolu noonu du am ñoom ñoo ñoom tamit aussi nañu jug jugal jëlal ko seen ay bopp bopp quoi mais ñi duggoon Feeling Dakar di di jël fi nga xamante ni. fa ay journaliste ñoo fa nekk caméra tàkk fu ne yooyu yaakaar naa yëfi dof la fii munoo fi dugg jël fi dara te duñ la gis wala ñu yëg la loolu moom c'est impossible bu yeboo ñu dem xoolaat feneen mais fii moom baaxul wax dëgg neef yàlla